n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen réservé pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause café seeni ndaje

Ya Allah Ya Allah loo ci ñaan mu may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokko shahru Ramadan Ramadan قدم يا حبيب mu ëmb mu gën ci weer yow nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dellu ci yàlla lu mën ci lu baax

waaw waaw comme dog nga pare xanaa nag dañ ma tasee fële non foofu ñu daan tasee rek foofu ñu daan tasee rek guddi koor gi moom daa war di neex comme dogu na daa war di neex waaw may ma tuuti nag parce que dama gis loo xam ne dafa ma jaaxal quoi naa la rappeler ci kanam waaye yow man damaa jommal wala waxu Pape barki dem bii rek moo tax di këpp këppal di julli ni gis nga booy képp kuy oyofal julli yaa ngi oyofal lu garaaw te na xolal gis nga waxi paa bi man jaaxalu ma de al muxtaar ma waxoon lu garaaw. ah ku baax wax nañ man lépp te julli kilifa yëpp dañ ci wax amul kenn ku mus ñëw jamono muy mu jàddit yeeg ñëpp te fàttaliku waxoo ci julli. ndax am solo gu mu am solo ci jullit yonent bi sax dem na ba wax ni kenn ci yéen bu amee ak dex ci buntu këram bu xëyee sangu ci bu ngoonee mu sangu ci bu timis ndax dina tax ñu ne ko déedéet mën a jullee ngoo te julli ni muy boolee diggante jaam bi ak borom bi amul lenn lu koy boole noonu julli sëñ Abdou Khadir Mbacke mu baax ma danaa wax naan mos nañ koo wax muy julli muy ngelaw mu ni julli muy ngelaw moo gën julli muy tàkk te lu ci mën a am des na ko def kon fonkoon na julli Cheikh Ahmad Tidiane Serif daa wax ci julli lu rëy kilifa yëpp beesalaat nañ ci wax ci julli dayoo julli ni mu amee kon julli képp bépp jullit boo xam ne yaa ngi néewal doole julli wala yaa ngi oyofal julli na nga xam ne yaa ngi oyofal loo xam ne xamoo ko loolu moom lu mat di bàyyi xel la kon julli bu ko kenn oyofal. du yoon benn jullit du reefal jullit lu rek moo tax foog ma def nii soppeeku nag foo am nit dina réer ba mu yàgg nga jékki-jékki tuub delluwaat sa bopp si yàlla waaye nekk si la neex rek